dal leen ak jàmm kawteef am na de dil ci kaw dil la woyu bandey baayam daanaka dóolkatu marto yi bari woon nañ fi lool waaye marto bu diisee nii ah gëj na fee am. attaquant sénégalais bi nekk footballeur de renommée internationale bokk ci candidat ballon d'or bu 2019 bi muy Sadio Mané moom la ñu fëgg ab dilu sept cent millions de francs CFA la ilaha illallah ak fi réew mi toll nii dama ne ab juróom-ñaar téeméer ci million ci suñu xaalis non bari na nag bari na trop ginnaaw Idrissa Gana Gueye mi nga xamante ne jëloon nañ ci moom lu ëpp ñetti milliards ci suñu xaalis ginnaaw bi ñu koy transféré jëlee ko Everton waroon ko yóbbu fële ca Paris Saint-Germain Sadio maane moom moom moo ci topp daanaka ndax ab dilu cent millions moom lañ ko dóor maître Moustapha Mané yóbbu na ab plaintam ngir yóbbu ca yoon doomu Allemagne bi ñu wax ne moom moo door marto bu nu mel moom doomi Allemagne boobu mu ngi wuyoo ci turu Bjorn Bezemer bu ñu sukkandikoo ci maître Moustapha Camara moom doomu Allemagne boobu liñ koy toppee mooy abus de confiance maanaam ak wor ak escroquerie maanaam ak sàcc gu mu def ci ginnaaw Sadio Mané ak alalam boobu la dil nag comme niñ ko waxee mu ngi toll ci sept cent millions de francs CFA ginnaaw plainte bu mu déposé woon moom maître Moustapha Camara di avocat Sadio Mané mbir mi yoon dina ko àtte fële ca tirbinal bu grande instance de Nanterre maanaam fële ca France waaye ñu ñëwaat ci dëgg-dëgg mbir mi naka la demee ci weerum novembre atub 2018 bi ñu génnoon Sadio Mané daf ci amoon ab prolongation maanaam contrat bu nga xamante ne ni dañu koy continuer lu toll ci juróomi weer ci këlëbam biñ ko gën a xamee muy Liverpool daanaka ci ni ñu xaatimee boobule contrat moom Sadio Mané payooram at gu nekk tolloon na ci 9 millions de livres sterling maanaam buñ ko xaymaa ci suñu xaalis lu tollu ci lu juróom benn milliard ci franc fa waaye ba tey ci ni ñu xaatamee mbir mi téeméer boo jël ci xaalis booba juróom ya ñu ngi ko waroon a jox bépp agent bu nga xamante ne mu ngi doon a liggéey ci mbir mi maanaam lu jëm ci wàllu jumtukaay ak li nga xamante ne moom moo soxal footballkat bi di Sadio Mané alal jooju maanaam cinq pour cent yi mu ngi toll ci quatre cent cinquante mille livres sterling maanaam buñ ko xaymaa ci suñu alal buy franc CFA dina toll ci trois millions deux cent six mille francs CFA maanaam ñett téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci ay million ak ak ñaari téeméer ak juróom benn junne moom avocat Sadio boobu di maître Moustapha kamara waroon na jot ci alal ji ni ñu mujjee daal di lim lu toll ci fanweer ci téeméer bu ne maanaam li tubaab di wax 30 pour cent ci 5 pour cent yi nga xamante ne agent yi ñoom ñoo ko moom moom doomu Allemagne boobu itam amoon na ci lu tolloo 15 pour cent maanaam fukk ak juróom ci téeméer boo jël ci alal ji nga xamante ne moom la réserver agent agents yi waaye bu ñu sukkandikoo ci maître euh, Moustapha kamara mi nga xamante ne moom mooy représenté Sadio Mané moom mbir mi dëgg-dëgg niñ ko waroon a séddalee daanaka séddalee wuñ ko noonu loola tax mu mer ba futtu tey xam la ne ne mbir mi jaarut yoon te moom dina fexe ba yoon am ci mbir mi ba tax mu daal di déposer ab plainte am yóbbu doomu Allemagne bi nga xamante ne moo doon def séddale bu ni mel fële ca yoon moom maître Moustapha kamara ginnaaw bi mu gisee ne mbir mi ni ñu ko séddalee jaarut yoon jógul rek daal di déposer yee mbili gi yónnee ko ay sommation maanaam ay bataaxal pour xamle ko ne kat mbir mi niñ ko doxalee du noonu te war nañ ci ñëwaat waxtaan ci def ko bu mu leer waaye mel na ni doomu Allemagne boobu de dafa tanqam lu mbir mi daal di gëmm ay bëtam fat ay noppam ne du déglu li ko waa ji di wax looloo waral maître Camara daal di ne léegi nag comme que dafay wax ak ndey mbili gi te nanguwu ko tontu dina ko yóbbu fa mbaxana doonee benn looloo waral bu daal di déposé ab plaintam daal di koy déposé fële ca France autorité judiciaire yu France ba wax ne dinañ ko àtte incha allah fële ca France waaye maître Moustapha Camara moom yemul foofu ginnaaw ci loolu dem na fële ca Allemagne di wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo seq kuréelu football gi muy fédération allemande de football ngir wax leen mbir mi dëgg-dëgg nu mu demee waaye yemul ba tey ci loolu bi mu ñëwee itam toog na fii ci réew mi daal di toog ak ki nga xamante ne moom moo jiite fédération sénégalaise bu football di maître Auguste Senghor ba tax ñuy laajte rek ana fan la mbir mi di mujjee lu ci mënti am ci xibaar ci mbir mi dinañ ci ñëwaat ak yéen leeralal leen 果